ki ni mu defee ay jéeya ay dëkk yu mel ni ndakaaru Kaolack ak am noonu la mbënn mi sonale dëkk bu mel ni Bambey yi taw mi yàq ay kër yu bare bari El Hadj Abdoulaye Dia di responsable politique bu APR sol dàllam dem nemmeeku ñenn ci askan wi ngir xool seeni jafe-jafe waaye sàkk ay saafara jébbal leen làkk sa ngërmu baay taxu fi say rakk taxu fi say mag bu la neexoon na nga nekk ndakaaru waaye da nga xam ne bu waa kër gi gental na toog ci kër gi di taabal taabal loo am bokk kook waa kër gi nekk ko ci lu bon nekk di ko wax nekk di ko def ñu naw la lool ci loolu bi ñu yégee ne kër gi dafa fees ndox ma ne nu mu gën a gaawee damay ñëw massa siw la xool ni ñu si wutee solution xool aussi ni ñu defee ba éradiquer ndox mi génn xool aussi ni ñuy def ba bagage yi fi jot a yàqu ñu xool ni ñu ko remplacer xool aussi ni ñuy def ba bien-être bi gën a yokk te it maa ngi lay sant ndax bi ma ñëwee sax damaa fekk ñoom dañ laa bett waaye dama fekk nga sol sama tiset alaaj ja loolu day wone ci fet gi ngeen am ci man waaye dinañ waxtaan balaa ñuy dem ñu xool ban solution moo gën a gaaw ci ni ñuy réglé ndox mi ci kër gi ba ngeen mën a fanaanaat ci bâtiment yi tey loolu mooy solution moo tax ma ànd ak sama équipe ñu xool aussi ni ñu ko réglé définitivement. moom moo fi xew lii la yàlla sunu borom dogal daanaka moom mbiru sunu borom moom doomu aadama mënu si dara ñu sant yàlla rek gëm yàlla sunu borom ginnaaw ndox mi moom fépp la te bon yàlla mooy dogal ñu ànd dogalu yàlla rek bon sant yàlla bu baax a baax a baax a baax parce que lii moom daa nekk loo xamante ni xaj na bon. kenn du yàlla mais tamit bu la yàlla dénkee benn bon bu nekkee si coono nga ñëw fekk ñu si dañuy sant yàlla bu baax a baax bu la neexoon nga concentré wu sa kër itam xam nga bañ a ñëw mais comme dox nga sa tànk ba gisal ko sa bopp ñu ngi sant yàlla la sant quoi. waaw nit ki nag doomu aadama moom yaakaar yàlla moo gën a wóor ñun ñëpp yàlla lan yaakaar dañuy telloo suñu loxo yàlla suñu borom delloo waat suñu dépp ci yàlla suñu borom te xam ne yàlla suñu borom moo ko doon yow nag sant nan la bu baax gërëm nan la suñu rakk nga suñu lépp nga jërëjëf. nag nit ñi nu loolu man xam naa loolu yow xam nga ko kon nag jërëjëf maa ngi sa papa Nourou Dia ñoo nekkoon mu di ma kale ma di ko kale kon nag lii bu amee nga war a taxaw ma taxaw topp ci sa kaw dégg la yaa war a topp sama kaw waaye baay sa ndey maay sa lépp moo tax ma topp ci yow toujours nga ñëw waaw kay jàpp la loolu bëggoon damaa bëggoon ah, daaw ndaxte yow magum lislaam nga mag mu sell nga mag mu yiw nga jigéen nga ba nga xam ne ñëpp xam na ci kaamil lañ la xamee ci ñaan yàlla nañ la xamee loolu bu ñu déggee ndox dugg na ci kër gi que ngay yàgg ak yàgg ñoo taxaw mën na ñaar fukk at dinañ ñëw masawu la ñëw xool nu ñuy génne ndox bi xool nu ñu éradiquer ndox bi di la masawu wax dëgg ci yàlla euh, bu ñu génne ci télé bi bu télé bi demee côté dinañ waxtaan bu baax ñu xool ni assainir kër gi ba ndox dootu fi dugg xool aussi ni ñu la jàppalee ci dund bi ndaxte aussi situation métti na ndox bi gis nañ ne yàq na kër gi ba am ñu génn loolu métti na topp moo tax ñëw pour masawu la dëgg ci yàlla di tey nuyu waa kër gi yëpp di nuyu aussi boobu mi nga xam ne moo jiite parce que élève Bambey yëpp. tey kenn ñàkku fi bakkanam fii ci diwaanu Bambey niki ni mu amee ci yeneen gox ci biir senegal fii daal leenu seetlu bokk na ci nekkoon am na yoon yu nga xam ne ndox mi da koo nangu nangu ay kër seeni borom war a génn nu gis ne sax yenn saa ndox mi dugg ba ci biir néeg yi. maa ngi nuyu El Hadj Dia di nuyu ñi mu àndal ñëpp voilà vraiment gis ngeen ni mu demee. donc kër gi daanaka chaque année ni lay demee quoi chaque année donc ndox mi day ñëw dugg si biir chambre yi dugg si biir yàq fi lépp presque daanaka boo xoolee voilà donc di ñaan vraiment ngeen jàpp si voilà di jàpp si bu baax a baax a baax parce que boo xoolee fi mu toll nii ndox mi yàq na lu bëree bëri boo xoolee appartement bi na le ndox mi dafa dugg si biir fii moom presque daanaka boo xoolee ndox mi da doon dugg mais fexe nañoo wut ciment bu ko defaree quoi fatt ndox mi ndox mi arrêté na quoi mais franchement ndox mi mu ngi dugg normal voilà donc di di leen ñaan ngeen jàpp si vraiment ñu ñu ñu fexee génne ndox bi voilà El Hadj yow moom vraiment ñu ngi gis liggéey vraiment ci dëkk bi gis nañ yàgg ngaa taxawu nit ñi si di si diwaanu Bambey nga nekk tamit aussi très social ko nit koo xamante ni te vraiment social donc yàgg nga ñoo taxaw yàgg ngaa taxaw askan bi askanu Bambey gépp yàgg nga leen taxaw vraiment ngay def lu rafet rafet dëgg yàlla yaa ngi yaa ngi taxaw askanu Bambey di jaajëfal vraiment ñu ngi àndal ñëpp voilà vraiment kontaan nañ si yéen baax a baax a baax. ñi mu jot seeti bëgg loolu ci ñëw gi mu fa moom El Hadj Abdoulaye Dia di wax ne am na kilifa yu nga xam ne ñu ngi ci dëkk bi yore ay ndombo tànk waaye tegul leen gët benn yoon. a rafet quoi franchement parce que lii bu la neexoon itam mën nga ko bañ a def ah. parce que ñu la gën a ay yeneen autorités ñu ngi fi defuñu lii mais finalement lii rek moom remerciement la quoi. franchement ñu bokk yéen affaire yi amul sant sant yàlla rek. parce que mën na dem gën a na gëna metti ni quoi parce que mën nañu jël suñu bagaat yi démé na te duñu xam fuñu aw mais heureusement dugg ci biir néegi fi rek la yépp di mm-hmm. ay quelques ay aussi amna ñu ñu teg loxo dëkk bi ci ay loxo parce que lo gis amna affaire administration parce que tey y a des maires y a des conseils départemental mais gisunu kenn kon mom lañu gis mom lañu mëna mën a waxal tey y a des responsables aussi kon franchement ñu koy remercier bu baax da kenn lu ne sa mag da nga yaru waaye bon mag mu fi gëna yaru ki ngay japp muy nit ku yiw ni ka nga xamne dafa taaj buy bàyyam ba bàyyam gërëm ko kër gi mu yor kër gi yor ay waa këram uf leen ci ñu leen war a ufee kon tey bu ñu déggee ndox am na fi yi dañ ñëw masaw sura wax dëgg ci yàlla xool ni ñuy lijjantee ba ndox mi évacué wu ndax li métti na ndax yow danga di mag ci dëkk bi waaye di nit ku yiw ku baax waaw wax dëgg ci yàlla moo tax ñëw bokk ak yéen naqar bi xool aussi ni ñu fexe ni ñu fexe aussi ba évacuer ndox bi waa fexe nga xool ñu ko évacuer te aussi ñu si jàppee bu baax a baax a baax a baax. El Hadj Dia di leeral ni tournéem yooyu daf koy wéyal ci biir Bambey dem ci yenn kër yi nga xam ne ñu ngi ci ay jafe-jafe mu wutal leen ay saafara jot na yóbbu lu mel ni ceeb ak mat la